mbokk yi gis ngeen maa ngi fi ak beneen champion boo xamante ni ñu ngi koy wax Niang Ballo bëri na ko ci journée bi nga xamante ni ku bëroon grand combat bi sax. gërëm ku bëri Dacia. Vieux Dacia ak. Euh, ak Youssou Ndour. Youssou Ndour gi. ñu gis ne moom moo bëri deuxième combat bi waaye yàlla dogal na ni ñëw na na mu ñëwee ànd ak ay mbokkam ànd ak waa Cambérène xale yi dooleel ko mu ñëw mais yàlla dogal na mu am ci defet ma bàyyi ko mu nuyoo ñëwee waxtaan wi. Niang nuyu naa la. waaw maa lay fay bàyyi dinaa woon sant yàlla si yonante bi di sant suñu ñaari waajur di gërëm baay Fall fi teew yëpp waaw waaw ñoo lay fay bu baax. ñu gis nag euh, moo nekkoon sa deuxième combat mais nga ñëw waa Cambérène yëpp ànd ak yow waa Parcelles. naka nga waajale woon combat bi. waaw waaw comme ni gars yi di waajale combat rek comme ni sama waajo waajalee ak yeneen gars yi waajal ko ànd ak baay Fall yi ànd ak ma la sama waaj samay mbokk samay xarit ànd ak ñëpp ñu ma war a àndal daal. waajal ko bu baax a baax. mais ñu gis ko nga bëre ki nga xamante ni nii mooy Aidara. waaw mais ngeen bëre ci biir ba ba génn. mais bi nga dellu si waatee. ngeen bëre nga féete ko wet mu takk nga takk ko. lu leer da doon tegal 16 walla ooy billaahi wallaahi. takk bu garaaw laa ko takk nag mais xam rek. ndeysaan. lan moo tax moment boobu bi nga ko takkee nga forcé ko. la moo tax bi nga ko takkee nga forcé ko. non boobu dama bëggoon teel a libéré gars yi xam nga gars yi seey. mais micro bi. dama bëggoon teel a libéré gars yi. Mhm. gars yi seey mais mooy loolu noonu léegi kañ gars yi dañuy xaar ma cons ko naaj xam nga. teg level deuxième. ba 27 gañ <laughs> barki alxuraan léegi du ma xaar sax troisième. ba 27 damay teg level deuxième ba 27 billaay wallaay. mais est-ce que nekkul yëfu xale la jàppoon. waaw ni la ni la gars yi toppee nga gis ne tey waru ma leen yàggal dama war a ñëw confirmer rek dem est nekkul bu loolu bokkul ci li yàq làmb ji. waaw yenn gars yi ñu ngi wax. loolu yenn gars yi ñu ngi wax loolu quoi naan xam nga. naan ay xale sawaay mooy nii àndal ak benn paa. Mhm. ay booy rek la àndal xam nga ñëw yàlla mooy kon dam ñun tamit suñuy demaat ay booy rek la ñuy àndal ndax ñun amoon lu ay booy. Mhm. paa yi seen ruq la ñuy toog paa yi ay yàqkatu der lan la ñuy yàq der xam nga ñun mooy loolu ñun daal waaye ban bul ma wax waaye ñun ama wax lu ma bëggoon paa yi xam nga barke alxuraan paa yi man Baye Fall laa man damay ñëw këlam ko mu jeex waa xam nga lu ma bëgg a këlam. gars yi dañ si ñëw jàpp booy yi yorunu weccit xam nga booy mais dama gis nga daanu. waaw di naan baalaan ma àq. ma fekkaat la ci cumukaay li nga ne da nga wét ci combat bi. waaw mooy lu ma lay wax ni mooy booy booy laa gis quoi. barke alxuraan booy laa gis ak yenn gaay gisuma kenn ko am bee jaaw wala kenn koo xamante ni nii xam nga mag nga ko waa hmm. te booy may àndal tamit xam nga du ma leen du ma leen balaame si dara maa leen di wax xam ma noonu la borom bi moo teew xam nga moo nu xañ ñu ngi ñaan yàlla beneen yoon suñu amee mu may nu ko waa loolu kase la mais tamit maa ngi siy woo ñëpp beneen combat maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëw jàpp si ndax man Baye xam nga gars yi nii ku leen jàppale ñu doon champion de barke alxuraan mais duñ yalwaan nag gars yi loolu lañ bëgg ñëw yor sa pot xam nga taxaw si buntu gàlle bi jëndal ma ticket defal ma lii non non man su ma weesoo tout tànk yi nii su ma ñëwee si booy booy ku si mën a jënd jënd ku si mënul du ma dem si kër kenn xam nga di la yalwaan ndax xam nga ñun ñoo ngi séentu leneen lu weesu làmb quoi ndax làmb day jeex xam nga après dañuy gérer suñu avenir dañuy am tout tànk xam nga waaw dañuy am ay dañuy am man ñaanuma yàlla xam nga am sama njaboot ñu naan sa papa. gaale giro la nekkoon giro moo ko jëndal 27 tickets giro moo ko may 30 mille ak yooyu noonu barki alxuraan man du ma dem si gaale kenn di la ñaan ko waaw. lan ngay wax ñi nga xamante ni que ñoo àndoon ak yow doon la supporter ba kaw bi ñuy ñibbi. amuñu lu neex lan nga leen di wax. non booy booy nee nañ kontaan hmm. booy loolu mais bàyyi yow da nga bàyyi ma waxal la. bàyyi ma waxal la xam nga booy nii. booy nee nañ kontaan nañ nee nañ ma gën si nekkaat. Mm-hmm. xam nga ñoom découragé wuñu ñoo ngi fi xam nga. gaay waaw xam nga. mais mais lu may wax mais lu may wax gaay ah. Mm-hmm. mooy lenn quoi mooy ñu gën si jàpp rek. ñu gën si jàpp ndax xam nga booy ay dawakatu sereet lan yenn booy yi amuñu xëy. ay jaaykatu kafa lan yenn booy dañuy taqale booy barki alxuraan su gars yi amee combat booy élèves yi dañuy mënee baru ji pour pour pour am lu ñu jëndee ticket. mais suñu amee xam nga benn benn bonne volontaire jëndal ñu trois blocs xam nga ñu jaat koy jox booy booy dem stade loolu noonu ñun loolu rek la lañ bëgg loolu kase kase kase bëgguñu gars yi héberger nu bëggunu appartement xam nga barki alxuraan bëggunu kilim bëggunu dara ñun xoolal neefere fas yeeg geetu fas yi ñun yooyu nuy may doole yooyu nuy dundal gaay yi nii ah barki alxuraan bëggunu bëggunu appartement bëggunu climatiseur ah ah ah bëggunu dara ñun mer gàddu baax na ku nu mën a héberger daal si mer gàddu waaw ah ticket rek ah ticket rek mool na bëggunu oto bëggunu voiture bëggunu dara xam nga xam nga nanu gaa yi barke alxuraan nanu gaa yi jàppale di ñu jëndal waaw nanu nanu gars yi jàppale nanu gars yi jàppale di nu jëndal ticket xam nga ndax bëri na ñu fi am combat instant yi nii ah. te waaw te doole yamul quoi doole yamul ñooñu noonu tamit gars yi war nañ leen jàppale mais gars jàppale lan la ñuy jàppale jàppale campagne kii moo si ma la sam waa moo ngi si politique ñu ñëw jàppale ko ñëw sa gaale ah ànd ak mbooloo xam ñëw waaw jaxasel am na ay séance daal yaa ma gën a xam. ñoo ñoo ne ci kanam fi mu toll nii. waaw fii instant yi gars yi ñu ngi wax. Hmm. instant yi nii. waaw yi ñu ngi wax bu baax a baax di ñaan lépp sotti rek. recordu balagaay bi lay gars yi bëgg di waajal baatare nii ndax gars yi amul Balla Gaye ñaata avance la jël. 4 4 waaw gars yi nag ñu ngi ñuy imposer ay 6. ñu ngi lay imposer 6 combats. maam Serap ñu ngi ñuy imposer benn promoteur mi ngi ñuy imposer 6 man la sam six avance mais loolu noonu dafa war a dem si ñu mu war a waxtaanal waxtaan ak ñooñu ñun entraînement la ñu sant xam nga ah ah entraînement ah. ak récupéré tëdd nelaw. kase loolu la ñu sant. waaw dimanche. waaw léegi Mbassa ñu ngi lay sant di la gërëm Mbassa. waaw Mbassa ñu ngi lay sant di alxuraan gis nañ ni nga jàppalee sa waay waaw ak sa gis ngeen noonu lay demee ci wasaare di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen bër. jaa ngeen jëf. waay micro bi nag waaye yàlla na doon ay télé bi ñu wasaare làmb giro kii man kii moom a njëkk a interview barke alxuraan xamal waaw ànd man. di woowaale gars yi nag mooy lu ñu defoon weeru koor gi paase. incha allah bii di ñëw Fatick la ko waa ndoguli waaw ndogu jeel maa ni loolu nag maa ngi siy woo gars yëpp nag baay loolu maa ngi siy woo gars yëpp gars yi jàpp si ndax paquetage bi paquetage bi daa metti xam nga. paquetage bi daa metti Fatick nan fa jaar xam lu fa am am am am luñ fa dund ah demoon nan campénal weeru koor gii nii di ñëw Fatick lañ jëm yaa ngi dégg ni ñaa fa fay dee nag Macky Sall graciel gaa am na ay champion am na ay mbër waaw les détenus ma la sama waay c'est non fatigable détenus yi nii fatigant na parce que naa la woon benn vidéo ah gars yi danoo grève mën naa ko génnee fii gars yi moo ko envoyé man lépp laay ndax gars man maay seen nu koy ambassadeur ambassadeur maa seen porteur de voix. am na benn vidéo boo xam ne moo ngi sama kóol. benn vidéo barki alxuraan. du ay caaxaan de bàyyi lu may wax nii barki maam Diarra Bousso. ah du ay caaxaan benn vidéo moo ngi jugee ba Kutaal. gars yi ñoo ma ko envoyé nono greffe xam nga xottu biteel yu si jangaa bi ah. ceeb bi mooy am xottu biteel barki alxuraan sama bëñ bi dafa damm loolu moo ma ko defoon. yaa ngi dégg xottu biteel yi Baye Fall ah ko tànn yéen cuisiniers yi. yaa ngi dégg ñun ay mbër lañ de mais gars yi ñoo tax ñuy bëre ñun foofu lañ nekkee mbër luñ doon foofu lañ ko doonee Macky Sall dimbalil gars yi te yàlla tax man su may wax si Jelmaani xol laay waxee nag waaw du bañ sax ñu jël si ma barki alxuraan waaw di waajal nag weeru koor gi ah amagul dat nag di Fatick lañ jëm Giro ñoo la leen siy woo ah, ak combat bi nga jugee nii waaw. grand bi waaw équipe bi waaw. Kaara coach waaw Kaara mooy loolu Kaara ñoo lay sant di la gërëm. micro bi ajal micro bi. Def ñoo ngi koy sant di ko gërëm ah, ak booy ndaw yi am na ay fitir fitir Giro Seras am na si équipe bi. Kamzi mooy nii ah gaa yëpp waaw ah, ah papa bu ndaw. ñoo ngi sant gars yëpp di leen wax nag ah yàlla nu yàlla jubole yàlla nu yàlla jubóole waaye yàlla nu yàlla jubole ñun ñu nekk si écurie bi xam nga kenn bañ ñu jaxase supporters yi ay seytaane lan xam nga barki alxuraan supporters yi ay seytaane supporters yu Giro supporters yu baal bu tal yëpp benn lan bàyyi leen jaxase bi man ku ñëw si man nag ni man giro nee ne lii suñ toogee naayit dama ko koy këlam booy man mu kenn ñëw si man di wax loo xamante ni nii sa yoon neewu si ku ma wax si tal ku ma wax si tal suñ toogee tal dama ko koy wax man mooy loolu noonu man Baye Fall laa waaw ku ñëw si man nag di jéem a jaxaseeg samay nit ni naa la naa ko woo téléphone cëppeel la barke alxuraanu karim bu kenn ñëw nag tel naa leen baare nag teel naa leen baare waaw gis ngeen ni lay demee kontaan naa ci yéen kontaan naa ci yéen kontaan naa ci yéen di leen jox dig daje ba beneen yoon mm-hmm. gaa ba